mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyoo ñi ñuy seetaan ñëpp di doore suñu wax fi ñëpp doore rek mooy bés bi bésu tiis la ci Sénégal mooy euh, ñaar fukki at ci gannaaw lu mat euh, ñetti téeméer ci ay bakkan rot na ci loo xam ne ci suñu cosaan ak suñu aada dañuy faral di wax ni ndogalu yàlla la waaye ñëpp xam ni càgganteeg nit moo gën a sabab loolu at wu ne nag mu am ñu ko taxawee nenn bu mel ni at wu ne rek day gën a wàññeeku te loolu mooy andi fàtte mooy andi ñu dem ba fàtte loo xam ne lu ëpp fàtte la waaye célébration yi baax na commémoration baax na waaye am na lu ko gën mooy ñu fexe ba xam ku def ak li tax mu def ku ci def naka sudul noonu war a mun a uyu ci kanamu yoon ndax fi léegi loolu amuñu culture boobu ci suñu réew lu nu mel du fi jóge bis bu ne nga dégg ab gaal gu suux amoon na daawaati jéeg fële ci Toubacouta Bitinti ay bakkan yu bëri rot ci bis bu nga dégg nga dégg accident circulation boo xam ne lu bëri ci bakkan dina ci rot te boo demee ba ci biir négligence humaine rek moo ko waral depuis ki bàyyi oto bu daw te warul daw ndax warul mun a am visite technique ba ki ko arrêté ci yoon bi gis ni ay papier matul mu bàyyi ko mu dem ba ci chauffeur bu ko dawal ba keneen ak keneen tant que amuñu culture boobu ni dañuy xool responsabilité yi li may wax nag du rek ci mbirum lu jëm ci transport waaye dafa jëm ci bépp fànn mooy ñun sénégalais war nañoo xoolaat suñu bopp ci ni ñuy doxale parce que bëri na lu ñuy dal ci ay immeuble yu daanu ay bakkan yu bëri rot ci te ñëpp gisoon nañ ni immeuble bi ci fële foofu la jëm ñu bàyyee ko noonu moo tax commémoration bi nu mu baax baax baax am na lu ko gën mooy nañu fexe ba xam ku def chaîne bi yëpp nag daa di leen jaarale fi ñu leen war a jaarale kon ñi ci seen bakkan rot te dee nañu ci àdduna Cheikh Tidiane ñu fàttali na ko musul am accident bu toll noonu ci dégâts humains yal na yàlla yërëm te jéggal leen yal na yàlla xareen àjjana donte sax jàpp nañ ñi li ñu jàng ci diine mooy yenn xeetu faatu yi ku ko faatu dañoo jàpp ni shahid nga mooy martyr nga cër bi islam jox martyr mooy mën nañ laa suul te duñ la sang sax cër boobu nga am waaye nag lu métti la ci famille la ñu war a waxtaanee nag ci ay poñ dinaa ko doore ci assemblée nationale defe naa ñi ci war a waxoon nañ ci yenn ci li am biir assemblée nationale waaye man li ma bëgg a wax rek ci turu conférence des leaders yëpp mooy ndaw yi ñu teewal ñun Yewwi Askan Wi ci assemblée nationale lañu fa def lépp. ànd nañ ceeg ñoom à trois cent pour cent ma baamuwaat ko parce que dañoo ne ci réew mu xaw a doy waar delloo na leçon yu bari lool critique bi yomb nag dem nañ sax ba naan lii de xam nañ ni leader yi sant ñu leen ko ma wax ko fii nag ñun leader yi ñoo leen sant taxawaay boobu bës ba jokkoo nañu ak ñun suivre nañu li xew ci suba ba guddi te ànd nañ ci mu leer nañ te saa su demaatee noonu lañ leen sant moom mooy nañu amaat taxawaay boobu bu yeboo nag Macky Sall créé caserne de gendarmerie ci biir hémicycle bi lan moo waral loolu nag mooy mandat bi leen sénégalais yi jox mooy na assemblée soppiku mooy na assemblée bi nga xam ne mooy voté loi na doon moom ki njëkk di appliquer loi assemblée bi nga xam ne mooy wote loi moom na jiitu ci appliquer loi assemblée ñaar ñoo ko sëkk constitution ak réglement intérieur de l'assemblée constitution dafa wax ni lii mooy cëru assemblée nationale lii mooy cëru député bi ñii lañu war a doxalee biir assemblée nationale réglement intérieur assemblée nationale ñëw mottali ko ne assemblée nationale lenn luñ ci war a doxal ñi la war a doxe ñoom nag bi ñu nekkee fii ba léegi yàlla dafa natt woon ñuy am majorité écrasante ba nga xam ne dañuy ñëw teg seen oom ci règlement intérieur bi di appliquer lu leen neex ku wax ñu ne la minorité ngeen noppi leen loolu moo fi musa am ñun ñii xeex nañu assemblée nationale te dañ koy assumé parce que gis nga Sénégal nañu bàyyi yenn wax yi xeex ci boppam du mooy problème bi lan moo indi xeex bi ak lan moo tax nit di xeex yonent yàllaa ko yónni te kenn gënu koo bëgg jàmm waaye bu demee ba génne jaasi xeex am na lu tax ñuy toog fii naan kenn warul xeex jàmm jàmm jàmm ñoom ñoo gën yonent dañoo gën yonent mi nga xam ne xeex na te su xeexuloon tey islam du egg si fi kon nañu bàyyi yenn wax yi ay xale bu ñu tongowee da ngay jàpp seet ku tooñ nga teelu xam ne ko yaa tooñ boo ko mënul da nga noppi ci wax ji waaye non déception ñun di taxul woon yóbbu leen assemblée bu dee ñoom dañoo ñëw assemblée nationale bëgg imposé lu dul yoon lan la député euh, opposition war def sol seen costume cravate croiser les bras ne suñu yoon ne aussi ëllëg bu ñu ñëwee bëgg a voter benn loi pour ci góor jigéen wala dañuy wala dañuy wote loi pour yokk euh, njëgu ceeb wala njëgu diwlin wala leen ak leen opposition bi neen ñii la war a demee ñoom ñu ne dañuy teggi loi daal koy def par force lan la opposition bi war a def li ñu def barki démb la ñu war a defaat moo tax ma ne leen nga ngàcce gaalaama siggil ngeen ñu parce que man nekk na assemblée cinq ans minorité lañ fa woon di cee xam ne li may wax bis bu ne ñu jalgati yoon te mënoo ci dara loolu nag moo jeex takk nag ndax nag ñoo leen ëpp doole assemblée de majorité sax amatuñu ko ndax quatre vingt bi nee na léegi non inscrit la ëpp ñu ñu lim gënuñ nekk ndaw ëpp ñuy kàttan duñu ñàkk fulla nag ba ñu jaay ñu leen li ci biir assemblée loolu jeex na assemblée li tax nag li ñu def am solo lan moo ci tegu la ca la tepp ci ñaari fan yooyu yëpp dañoo dellu si négocier lépp dañ koo waxtaane lépp dañ ko waxtaane waxtaane nañu commission yi nañ ko war a tërale kan mooy jël ban nangam bi ñu ñëwee lan la ñu waxoon ci commission yi ñoom ñooy tànn lu leen neex opposition doog a tànn gars yi du fi ame du fi amee dañ koy waxtaan ba déggoo assemblée boo xam ne ëppoo fa doole gestion paritaire la war a doon opposition bi li mu wax rek mooy nañu toog waxtaane mbir yi fii kenn bëggu fi lu yàqal Sénégal kenn du fi def loo xam ne da nga koy bloquer pour bloquer rek pour le plaisir déedéet lu ñu andi lu baax ñu wote ko lu ñu andi lu baaxul ñu ne leen du fi amee loolu mooy assemblée nationale. loolu la Sénégalais yi ci ñun moo tax ñu jox ñu quatre-vingts députés de l'opposition deux non trois non inscrits muy quatre-vingt-trois ñoom ñoom quatre-vingt-deux kon est-ce que yoon la ñu toog yoon ne suñuy voté ay couleur pour kandidaa bu nekk ñoom ñu ne loolu du amee. ñoom ñoo violé règlement intérieur ngeen bëgg suñuy député lem seen loxo seetaan leen ñu def leen neex géelu Macky Sall ne foofu mel ni moom moom Sénégal bis bu amatee ñu jaarat noonu foofu ma wax ko léegi mu leer bu yeboo nag na préparer indi caserne gendarmerie biir assemblée nationale may dànkaafu Macky Sall nag parce que man su may wax ak Macky Sall constitutionnel bi mu am Ismaïla Madior Fall commencé ko toggal naan ko da ngay suspendre assemblée nationale article cinquante deux de la constitution loolu lay rumbanaat fi mu toll nii waxaat na ko benn télévision tugal président Tunisie bi foofu télévision boobu la ko demoon waxi dellu si daal di suspendre toutes les institutions à Tunisie Macky Sall barki dem bi mu demee Nations Unies télé boobu la dem waxaat ko dina xam ni Sénégal du Tunisie sénégal yi ñoo bëggoon assemblée nationale wuyoo assemblée nationale moo tax ñu ne dañuy dooleel opposition moom nee na ses pouvoirs ne dépendent pas de l'assemblée les pouvoirs de l'assemblée ne dépendent pas de lui loolu mooy yoon suñu nee séparation et équilibre des pouvoirs mooy moom ci boppam ay pouvoir assemblée dépendrul ci moom moom waroon na am kersa di wax ci assemblée parce que mi ngi violer séparation des pouvoirs mais comme c'est un homme volontairement violent dans tout ce qu'il fait moom jàpp na ni Sénégal da koo donn ci ay waajuram xam na ñun ñii ñëpp ay ay ay assujettis lañ moo tax mu jàpp ni moom mën na suspendre assemblée nationale bi daa di am tous les pouvoirs di gouverner par ordonnance loolu la gëm Macky Sall Ismaïla Madior Fall mu teg fee nga xam ne musiba bu mu dugg nag moo ko fay dugal loolu la ko gëmloo fi mu toll nii waaye ba ñu yegg ca waaye teel naa teel nañ ko dànqaafu te wax nañoo ak Sénégal yi. moom mënul fecc li sénégalais yi fas sénégalais yi ñoo bëggoon assemblée mel nii ñoo bëggoon opposition bi am fa doole ba lu fay ñëw dinañ ko mën a càmbar te noonu lañ koy cambaree nag te fan yi di ñëw assemblée nationale dina neex de li muy tiit li ko tiital ba muy bax baxi loolu dina am assemblée nationale dina doon un lieu de débat boo xam ne mbir yi dootul ñëw rek député nelaw ba ñu ba ñu ne heure vote mu jóg ne wote daa lu ñu andi dinañ ko càmbar parce que loolu la askan wi namm ci ñun waaye duñu yem ci loolu ñun dañuy yóbbu dinañu proposer ay loi teg ko sur la table luwaa yu dëgër nag loi yu leer nañ yoo xam ne Sénégal da koo soxla dinañu déposer pour ñu taxawal ay commission d'enquête parlementaire ci luubal gi ci réew mi loolu moo ko tiital waa ji nelawatul lekkatul boo xoolee kanam bi sax da nga ko yërëm dinañu bi budget yi nga xam ne moom la war a teg ci table assemblée nationale ba mu leer li lii mooy intérêt Sénégal lu ko may ñu delloo ko ko en seconde lecture loolu tax muy annoncer la couleur naan si on bloque moi je prendre mes dispositions yooyu ay waxu daanu saret la kon ñu ngi rafetlu suñu taxawaayu député buñu déglu kenn ci ay donneurs de leçons assemblée nationale règlement intérieur la kan moo mun a ne Benno Bokk Yaakaar violewul règlement intérieur ni mu falee président amul ku ko ñemee wax ci Sénégal ba pare ñu bëgg ne gars nañu toog jàpp seen njàmbur croiser les bras loolu jeex na ci Sénégal wax nañu gouvernement bu bees 2019 dama taxaw ci assemblée nationale vidéo yaa ngi fi xale yaa ngi koy génnewaat ba léegi ma ne Sénégalais njumte am na de ndax jox Macky Sall deuxième mandat musiba la ci Sénégal ma ne woon sénégalais nag juróom at yi di ñëw di ngeen souffrir du yéene de yàlla xam na ni yéenewu ma lool mën di rek lañu fasal Sénégal ci suñu xol bi mais xam réalité bi moo taxoon ma ne sénégalais di ngeen souffrir waaw moom def na ñeenti at la ko tegu Séné est-ce que am na sénégalais bu mun a weddi ni sénégalais yaa ngi souffrir suñu mu toll nii. ana mbënd bi ana njëgu dund gi ana njëgu loyer bi ana liggéeyu ndaw mi ana paj mi ana njàng mi lan moo dox ci Sénégal nañ ma wax benn secteur boo xam ne mu ngi dox Sénégal kan moo ma ko mën a génneel amut dara doxul kon su ma taxawaatee fii ñu ne waa ji at genn walla ko dese may leen at ak genn wàll googu Sénégal dinañu souffrir encore ngeen war ma gëm parce que dama ko teg fuleer nee na gouvernement la teg gouvernement de combat moom dafa yéex a yeew combat bi commencé na bu yàgg moom daan nañ ko ba sëlëm ko muy doog a yeewu naan gouvernement de combat combat bi doorul tey combat bi dafa door bi mu commencé ay tappale mois de mars ñu duma ko sur le terrain mu ñëwaat élection locale li génn ci urne yi ñu duma ko luy ville bu mag mu ñàkk ko ñëw élection législative ñu duma ko bu gën a méttiiti te bu ñu vingt 2024 ñu faxas ko mu dem muy doog a yeewu naan gouvernement de combat moom kay moo yee tuddee boppam le lion qui dort et se réveille jamais waaye gouvernement de combat par rapport à quoi et par rapport à qui est-ce que combat bi pour régler problème sénégalais yi la déedéet dama ne xool leen gouvernement bi kan moo ko jiite Amadou Amadou Ba yor na ministère de l'économie et des finances pendant sept ans tey économie Sénégal xalangu ba ci suuf ana entreprise bu dox ana secteur économique bu dox exonération fiscale yi ñu jox entreprise étrangère yi te du yoon wax naa ko assemblée nationale xaalis réew mi ñu sàcc suuf si ñuy dagg aéroport ak feneen ak feneen lépp sous le magistère de Amadou Ba la ku télé pendant sept ans mënoo taxawal économie ñu ne la un an et jox nañ la premier ministre tey problème Sénégal jeex Sénégal nag boo fi amee say milliards yaa xam foo ko jëlee ndax man de inspecteur des impôts la moy mooy million waaye boo fi amee say milliards 2014 déjà neewoon nañu 800 millions la def ci image am budget image léegi nag xam naa ay milliards lay doon boo fi amee say milliards lu leen ñu bindal la ko l'homme de la situation nangam nangam mu mel ni waa ji barki dem rek nekkul woon ministère <laughs> ministre de l'économie et des finances te dara doxul ci réew mi moo wax ko yi man yéen lay waxal sénégalais lu toll ni tarfata ay du changé waaye day gën a garaaw xam ngeen ndax lan Macky Sall laj lajj depuis le début xam nga fu mu juumee mosul xam lan mooy priorité Sénégal lu neex tubaab yi la doon xool moo tax tubaab yi ne ko defal ay infrastructure parce que suñuy entreprise soo defee infrastructure ca la ñuy mën a am marché sa dëkk tabaxal ay stade tabaxal ay arène tabaxal ay autoroute loolu lépp baax na de waaye lan mooy priorité Sénégal ak lan lañ ci def ana mbayu Sénégal mbay dañu ne woon 2017 la ñuy am auto en riz tey li ñu doon importer ci ceeb lu ko raw la ñuy importer ana mbayu Sénégal mbay réew mu mënul téye mbayam réew moom mënul fexe ba defoon waaye bu àdduna bi tisoolee yow nga soj parce que tey suy dem ba Ukraine di yelwaan ay blé fa suñu suuf sii nga xam ne yàlla jox nañu ko kenn xamul nu mu toll. lan lañ ci def ba tey suñu mbay mënul dundal Sénégal ana industrie Sénégal zéro tissu industriel réew mu amul industrie pour transformer da ngay bay mënoo développer mënoo créer emploi mënoo am résilience mooy su amee problème ci àdduna bi nga mën koo dëkku ana loolu yooyu mooy priorité Sénégal ana napp gi jaay na géej gi yëpp ana càmm gi zéro nga foog ne nga développer réew ci anam googu ñu naan sa addi nañu premier ministre dàq nañ premier ministre sénégalais ku gëm ni loolu mooy soppi mooy tax ndaw ñi am liggéey moo tax pañ mi baax moo tax euh, euh, économie bi développé nax nga sa bopp dara du dox ñeneen ñi ci nekk ministre yëpp nekkuñu foon ministre suñu scandale pétrole ci ministre yooyu la jaar suñu scandale Prodac ci ministre yooyu la suñu scandale bi ñuy bëgg a jaay suufu suufu Batrin beeg ñoom seen ci ministre yooyu la jaar suñ ci taxul woon tapé sur la table tey jaay nañ ko ñi am seetlu yëpp jàpp gis nañ ni dénominateur commun bi ñu am mooy kan moo dàq saaga Ousmane Sonko ci ñoom léegi ko bëgg doon ministre wala nga am ay milliards saaga Ousmane Sonko Macky Sall fi mu fi mu yóbbu Sénégal fi mu wàcce Sénégal dafa sax indécent ci Macky Sall rek la Sénégal eggee fi waxu waaso waxu xeet waxu région saaga subaak ngoon suñu waxee ñu ne xale yi saaga ci ci Facebook déedéet xale yi dañuy développer ay anticorps par rapport ak ay mag yu leen di saaga tous les jours man de kenn musuma dégg ma saaga kenn gisuma gis gi ma ànd ak saagakat Macky Sall ngay gis ku saaga su bu ngoon jot mu woo ko pale jox ko xaalis photo ak moom jabaram toog ñu photo foog nga ni Senghor dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdou Diouf dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Ablaye dina doon wàcce république à ce niveau tey yi ñooy ñooy doxantu biir pale nit ñi suñu buggee wax nañu wax loolu moo gën waaye suñu jógee waaw goney Pastef yi nangam nangam goney Pastef yi anticorps la mooy yaram bu ko feebar duggee dafa am loo xam da koy développé ci ci biiram pour mën a xeex feebar boobu waaye goney Pastef fi jóguñu saaga kenn bu guney opposition jóguñu saaga kenn dañuy tontu ñi nga xam ne ci loolu la ñu dëkk suba moo tax bu dee politique tam waaye ñoom addition de zéro la ñiy jël ñëpp ne dañ leen def ministre c'est pas eux qui vont faire des combats politiques kan moo ci gañee fi mu dëkk ci ñaari élection yi passé ñoom ñëpp dañ leen duma ay liste remplaçant ñoo leen di duma ban poids politique la ñu am nañ ma wax jël leen kenn kenn ministre yeeg premier ministre ak yëpp door nañ leen élection locale duma leen élection législative kon du ci administrativement du ci politiquement du fenn foo mën a nattee du ci prise en charge des préoccupations des Sénégalais du fenn foo mën a nattee ne ñi gouvernement de combat la mu des nag kon ban combat combat ak opposition c'est pas un un escadron de bras cassés et de canards boiteux qui va combattre l'opposition kenn ci ñoom ñëw ci bureau de vote du ñu ñoo ñuy combattre ma wax leen nag vrai gouvernement de combat Macky Sall xam ngeen lan général Moussa Fall la commissaire yàgg la une partie de la justice la et une partie de la presse la lii mooy gouvernement de combat Macky Sall ah. du lële général Moussa Fall ak yàgg gëmloo ko ni jënd na lu doy ci ngànnaay ci grenade lacrymogène ak leneen ak leneen ba ku yëngatuñu duma la moo tax nu xew ci réew mi ñu génne char de combat fu ne pour dox ci ci ci ci xelu seen ah, xale yi ba dootuñu ñeme. mais dañoo xamul lu xew laajal Ben Ali laajal Moubarak laajal président Soudan gis nga un peuple qui dit non gisuma gendarmerie wala police bu koy téye yooyu ay waxu caaxaan la ñaareel bi mooy une partie de la justice sénégalaise est-ce que tey xoolal classe politique bi su ñu nee dem élection 2024 nee nañu Khalifa Sall du doon candidat. nee nañ Karim Wade doon candidat léegi ñu ngi ruma daat naan Barthélémy Dias doon candidat Déthié mi am na benn suuf man moom ma teel ko wax gannaaw yàlla amul luy dund lu mën a tere ne candidat loolu moom du lu ñuy wax waaye lépp fan la jaar mu ngi jaar ci justice ci ay tappale yu kenn xamul soo joxee ñoo magistrat jóg bel bel bel bel bel ñun kenn munu mënuñoo xokkatal kenn mënuñoo inti gis nga réew mi lu fi jara wax yëpp dinañ ko wax parce que dans une démocratie tout se discute amul sens interdit bu justice defee lu dul yoon ñu wax ko tey la la justice est le premier bras de Macky Sall moom mooy instrument pour la liquidation politique des adversaires de Macky Sall justice waaye nag lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru de nañu tey parce que ñun ñëpp sénégalais lañu te kenn ëppalewul kenn ci dëkk bi la presse maa ngi félicité Barthélémy Dias li mu wax keroog dëgg la une bonne partie de la presse bokk problème la ci Sénégal barki yàlla booy xool presse su Sénégal nga xool presse Mali wala presse Burkina da ngay rus c'est devenu un problème la ko andi nag yéen journalistes yi taxul ñeen ñu wax de yenn moom ñoo bokk coono ñooy naanandoo suñu lacrymogène bu ñuy tourné ñooy doo ci àll bi seen patron yi dem mbëkk fële ñu jox leen ay milliards te duñ leen ci jox ñoom la ñuy waxal ay dóorkat ay mbëkkkat nguur gu ñëw ñu naxanteeg moom laxas si moom ñooñu ñoo tax ñuy wax dafa am jamono nit ñi dañoo gëmoon ni le la la quatrième le quatrième pouvoir c'est la presse dañ ko daan dégg même dans les livres de livre de droit constitutionnel dañ ko doon wax moo tax ñëpp dawoon dem uti organe de presse ne su ma ko amee am naa moyen de presse de pression am na waykat bu ne woon euh, nu ko tuddee ouragan ëppal asamaan euh, jant leer ma jànnoog satellite satellite woon ma feneen feneen dinaa liggéey ba am lu ma jëndee satellite nangam nangam boobu gént bu yàgg la woon su ma juumul kàddu yi noonu la ñu jàpp ni ku am sa groupe de presse soxlawo parti politique te ëpp doole parti politique yi soxloo nekk président de la république da ëpp doole président de la république bu ko defee mu doon moins de pression et de chantage sur les gens et ça marche avec les petits présidents amul benn personnalité xaalis bu ne nga joxe ko naan nañu bind lu baax ci man ak bu ñu nañu bind lu bon ci ñële mais loolu dafa jeex tàkk la jeex dañoo nekk jamono joo xam ne presse sax léegi mu dépassé parce que yéen ñi ñëpp journalistes yi wóor na ma ku nekk am nga sa benn bloc sa benn page Facebook booy def sa benn sit internet ku yaakaar ni yor nga groupe de presse loo neex nga wax ci nit ñi te li gën a garaaw mooy kenn du la tudd yow mun nga taxaw wax loo neex ci nit ñi ku la tudd nga mel ni mbott bu wan bu wan caméra loolu au nom de quoi au nom de quoi invité nit ci plateau mel ni ku ku lu ne nga jàkk ko ko mu dóor la benn ngay ngay ngay bëgg a xatraay au nom de quoi cette dictature ne marchera pas. En tout cas, moi, ça ne marchera pas avec moi. Je respecte chacun et j'exige le même respect de chacun. lan la ñu fi bindalul ci ay ngeen wax ngeen baal ma ci wax ji may ay fenu nen l'observateur en pleine campagne son a reçu cent quatre-vingt-quinze de tuloy ooy est-ce que am na lu gën a garaaw loolu kan moo ci wax ngeen foog ne loolu dina continuer noonu dans ce pays parce que yor naa sama organe de presse rek lu ma neex ma bind ci nit doo xool ni père de famille la doo xool ni dafa am njaboot ci politique ay milliers de personnes topp ko bañuñu ku def nga am preuve ni def na nga wax mais sos suba ngoon guddeeg bëccëg sénégalais dañuy toog di seetaan seen nit di wax ñu naan kii moo mën a wax lu dul noonu parce que nit ñi léegi dañoo yeewu moo tax li Barthélemy def ànd naa ci man réew mi il va falloir crever l'abcès taam na loo xam dootuñu ko nangu lii nag mooy gouvernement de combat Macky Sall gouvernement combat Macky Sall c'est pas ces canards boiteux là ñii politiquement ku ci dem terrain bi ne damay quartier laa bëgg soo demee ñu duma kan moo ci gagné wax leen ma am na ñu demoon élection locale fii Dakar defe naa est-ce que am nañu sax 5000 voix am na ñu demoon yeneen dëkk yi fu nekk fan la ñu gagné bañ naan ñii mën nañu def un gouvernement de combat contre qui donc ñu feddali lii lépp ànd nañ ci la ca des nag wax na kaaw Barthélemy Diaz man askan wi laay waxal askan wi moo war a protéger les ki qu'il donne puisque institution yi mënatuñ koo def assemblée nationale lim fi nekkee depuis des années gis nañ ko man bi ñuy lewee sama immunité parlementaire ñëpp xam nañ jaarul yoon ñëpp xam nañ ko un député qui en cours en session loi li mu wax dafa leer suñ ko poursuivre lu dul assemblée nationale levé na immunité li xew ni acte de poursuite la parce que poursuite yi mi ngi commencer avec réquisitoire procureur mi ngi jeex quand le jugement sera définitif loolu mooy poursuite donc en appel acte de poursuite la preuve le le procureur est venu defaat réquisition am daal di demander cinq ans loolu du acte de poursuite kon lan moo tax assemblée nationale ne ci cell moom di seetaan pour que un député en cours de session ñu mun ko euh, condamner sans pour autant que l'Assemblée nationale n'ait levé son son moo tax ma ne affaire bi dootul affaire u Assemblée nationale donte suñuy député ñu déposer li ñu war a déposer semaine bii avocats yi dinañ def euh, pourvoi en cassation mais dootul affaire Assemblée nationale la ma waxoon ba ma ca tollee man mois de février daaw dama leen ne lii du mbirum justice mbirum jaay doole la ak mbirum politique donc politiquement lañ koy répondre askan wi moo war a protéger ses mandats parce que dañoo jël Barthélemy ne kii ab criminel la askan bi leen d'accord criminel boobu moo ñu doy pour jiite la capitale du Sénégal ñu jox ko mandat askan wi dellu siwaat criminel boobu moo ñu doy pour ñu jox ko mandat mu dem assemblée nationale kon askan wi weddi na loolu loolu doy na ci weddi moo tax askan wi moo war a protéger ses mandats parce que fi ñu bëgg a jëm mooy foqati son mandat de député ak ak xool ndax mën nañu fokkati soo mandat de de ville de Dakar loolu duñ ko nangu la may daanelee daal pour bañ a guddal yow askan wi laay waxal rawatina yéen ndaw ñi rawatina yéen ndaw ñi bu leen kenn ëlëmal ak wax yu amul solo ay def na gouvernement andi na premier ministre dàq na premier ministre dugg na fii génn na fii gouvernement bi dama cee cof rek dinañ ci wax bu jotee parce que xam nañ leen de dinañ ci wax bu jotee te nag combat bi mu bëgg dina am ma nga commencé assemblée nationale li mu ragal dina am ministre yëpp ñoo ngi leen di xaar assemblée nationale benn benn xam nga ñun ay benn benn lañ fa ne newoon Déthié Sonko ay Aïda Mbodj te daan daan nañ leen duma dumuy mit bi paa nag dina saf-saf assemblée nationale pour projet de loi bu ñëw loi de finance bi yéen ñëpp di ngeen gis ren plénière yi nu muy demee dina neex de loolu nag moo tere nelaw Macky Sall waaye li may wax ndawu Sénégal lii ñuy def nii yëpp cosmétique la ak bugg a taal ay contre-feu pour réeral leen xam ngeen lan laa bëgg ngeen def focus li ma bëgg ngeen jàpp ko moo tax man débat troisième mandat duma ci dugg xam ngeen li ma bëgg ngeen jàpp ko Macky Sall 2024 février mille vingt sera plus président du Sénégal na fi jóge abal ñu réew mi na am ngor gu doy nag ndax askan wi def desewu ko dara nous sommes 17 millions de sénégalais ñaata ñoo ciy mus a nekk président ñu xëy jox ko président defu ci dara lu nit mën wax mu dellu si ne joxaat leen ma ñu jox ko constitution bi ne kenn mënul tegle ñaari mandat nul ne peut faire de mandats constitutifs bu gorewul nag na ko askan wi woon naka lañuy def ak ku gore bi mooy ci nii wala ci nële Macky Sall 2 février 2024 dina jóge ci réew mun na am na ñu koy xalamal nekk ci plateau yi di ko waxal lu ko neex ñu nag ñoom xamante nañu te su dul woon alkaati gu dox suñu diggante ba ci keroog assemblée nationale bu dul woon alkaati gu dox suñu diggante ñoom xam nañ du demee nii noonu la demee nag ci lépp lu ñuy def xam nañ ni ñoo leen ëpp ci réew mi ñoo leen ëpp ndaw yu ànd ak ñun ñoo leen ëpp jëpp ci ñu ànd ak ñun ci diaspora bi amul fenn fooy natt foo xam ne tey Macky Sall ëppale nañ ci réew lu dul nag yaakaar ci Moussa Fall yàgg ak justice loolu nag dina jeex ci réew mi ñu ngi leen gërëm di leen sant je vais résumer brièvement en français je disais simplement que pour ce qui concerne l'Assemblée nationale je tiens à dire ici au nom de tous les leaders que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale nous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi nous sommes à pour cent en phase avec nos députés c'est le mandat que le peuple sénégalais a donné à ses députés et c'est le mandat que nous leur donnons à eux-mêmes. N'oubliez pas que lors de la campagne, c'est nous les leaders qui avons fait le tour du Sénégal pour demander aux Sénégalais de voter pour nous. Nous avons assumé d'endosser la casquette de euh, tête de liste, la casquette de membre de la liste nationale, chacun d'entre nous ici assis. Nous sommes aussi comptables que nos députés de tout se fera Nous allons travailler avec eux tous les jours pour qu'ils soient les meilleurs députés possibles et que pour l'Assemblée nationale reflète vraiment l'image d'une Assemblée nationale. C'est le mandat que le peuple sénégalais a donné à ses députés. Parce que le peuple a voulu que l'Assemblée nationale soit fortement, que l'opposition soit fortement représentée à l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui l'a voulu. C'est la volonté populaire. Et en démocratie, la volonté populaire qui vaille. Il n'y a

Aujourd'hui, il est à 46%. 20 points entre-temps. Et ces 46%-là, vous enlevez au moins 10 points qui concernent les Le vol du suffrage. même si on le laisse aller même pas au deuxième tour. C'est une prédiction, c'est moi qui le dis. Mais nonobstant tout ça, le peuple deux non inscrits plus un troisième maintenant ce qui veut dire que l'opposition est désormais majoritaire à l'Assemblée nationale Macky Sall est sans compter ce qui se passe à l'intérieur de son clan parce que s'il a nommé Amadou c'est parce que ça s'est imposé à lui parce qu'il ne voulait pas avoir deux fronts dans son groupe et tout le monde sait que Amadou Ba tient un certain nombre de députés qu'il arrose bien et on parle au minimum de raison, mais c'est un choix, c'est pas un choix de cœur, mais c'est un choix de raison. La nomination de Amadouba au poste Premier ministre. Elle donc, si le peuple a voulu cela, c'est qu'il veut que l'Assemblée nationale change de manière de fonctionner. Qu'est-ce que les gens voulaient que les députés de l'opposition fassent? On vient à l'Assemblée nationale, on doit élire un président de l'Assemblée nationale. La loi est très claire, le règlement intérieur. Il faut une enveloppe d'une certaine couleur pour chacun des candidats. Benno Bokayakar dit qu'il n'en qu qu sera absolument rien et, et qu'il n'y aura qu'un seul bulletin. Et ensuite, ils vont mettre ce qu'ils veulent là-dedans. Et vous voulez que les députés de l'opposition croisent les bras et regardent faire. Tous les gens qui donnent des leçons qu'est-ce qu'ils auraient fait à, la place Si demain, Benno Bokayakar amène une loi extrêmement gravissime pour le, contre le peuple sénégalais, qu'est-ce que les Et si pour faire passer cette, cette loi-là, ils escamotent la procédure, parce qu'ils savent qu'ils sont plus majoritaires à l'Assemblée nationale, vous croyez que les députés vont se croiser les bras pour les regarder faire Il faut arrêter. Moi, je suis totalement satisfait de nos députés. Et le fait qu'ils se soient battus ce premier jour-là a permis de ramener euh, Benno Bokoyakar à la raison. Parce que pour tout ce qui a suivi, et jusqu'au moment je vous parle, Benno Bokoyakar a été obligé de venir table de négociation. Je vous donne quelques exemples pour les commissions. Parce que ce que les Sénégalais doivent savoir, on a le même nombre dans le bureau, totalement le même nombre, et je crois même qu'on risque d'avoir plus, puisqu'on a deux groupes parlementaires. On a le même nombre au niveau de la conférence des présidents, et on a le même nombre au niveau des commissions. C'est ça l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les forces sont totalement égales. Et c'est pourquoi, dans ce genre de situation La seule solution, c'est de discuter, de dialoguer. Or, Macky Sall n'est pas un homme de dialogue. Il pense que ce qu'il faisait avant, quand il avait tout, le pouvoir en cette main. Détier l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il tient une partie du pouvoir, nous en tenons une partie. Nous tenons toutes les grandes villes de ce pays en termes de collectivité locale. Et c'est pourquoi la mise en place du réel, vous allez voir ce que ça va impacter et ce qui va rester la moitié de l'Assemblée nationale. Mais Macky Sall n'a plus le pouvoir, le plein pouvoir ici dans ce pays. Il doit respecter son opposition. S'il le fait, nous trouverons des consensus pour faire avancer le pays. S'il ne le fait pas, il y aura affrontement. On ne l'acceptera pas. Et c'est pourquoi ils ont été obligés de revenir à la raison pour la mise en place des commissions, parce qu'au début, ils avaient dit, eux, viennent, ils choisissent d'abord les commissions qu'ils veulent, ensuite, nous, on prend le reste. On a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Ils Parce qu'ils savent s'ils l'avaient pas fait, l'Assemblée serait encore bloquée, ils amèneraient l'armée cette fois-ci. Peut-être que même des blindés seraient à l'hémicycle. S'ils respectent l'opposition, le respectera. Mais tant qu'il continuera de manière arrogante, de manière méprisante, à parler de l'opposition comme s'il parlait de, de, de, moins que rien, il trouvera une opposition à, sa hauteur. Il a dit gouvernement de, de combat. Il s'est réveillé trop tard parce Et donc, cette assemblée sera, soit ce sera une assemblée de dialogue ou alors ce sera une assemblée de blocage. Et même peut-être pas de blocage parce que si la nouvelle majorité que nous avons fonctionne correctement, les gens feront passer ce qu'ils veulent passer, l'opposition en tout cas. Des discussions se passent. Il est question d'acheter des véhicules, par exemple. Mais les députés de Askan ont dit, il n'y a pas d'urgence pour qu'on fasse une, procédure d'urgence. Je ne travaille pas en secret. Quelle est l'urgence qu'il y a On dit, oui, la session va démarrer, il y a des députés qui habitent loin. Ces députés-là, comment ils faisaient pour venir à Dakar avant Et une qu'ils sont à Dakar, ils sont logés à l'hôtel des députés à 0 mètre. Toutes ces pratiques-là qui permettaient de donner des marchés à qui on veut, de les surfacturer et de bouffer a dit les questeurs. le questeur. Tout ce qui se entre les deux questeurs. L'Assemblée sera gérée de manière transparente, les finances de l'Assemblée. C'est moi qui vous le dis. C'est appelé là ça que le peuple sénégalais voulait. Et c'est pourquoi Avant-hier, nous, conférence des leaders, nous avons demandé au président du groupe parlementaire, lorsqu'ils ont convoqué la question sur quelle base C'est illégal. La loi est très claire, le décret de 2021 et l'instruction. Aucun véhicule ne peut être si ça ne passe pas d'abord par la procédure de la réforme administrative. Et une fois que c'est réformé, on peut la vendre par adjudication. Et exceptionnellement, on peut le vendre par entente directe. Et en ce moment, celui qui avait le véhicule est prioritaire. C'est ça que la loi dit. Mais depuis des années, l'Assemblée nationale, à chaque fin de législature, oto yi Même le président de la République n'a pas le droit de donner des véhicules. Et pourtant, chaque jour, on dit Macky a donné un véhicule 4x4 à tel, etc. C'est des violations constantes et c'est des milliards. Les véhicules de l'Assemblée nationale ont coûté 161 du moins. Compte non tenu des deux, des seconds véhicules de, des membres du bureau, du président, etc. 1 milliard 500, 5 ans, les véhicules sont encore intacts. Vous dites, on, offre ça à des députés. Et des députés qui c'est pas normal. Et c'est cette Assemblée nationale-là qu'on va imposer désormais. Et c'est comme ça qu'on gérera le pays le jour on nous, on nous fera confiance. Moi, je l'ai dit, je rends mon véhicule de service, mon passeport diplomatique, parce que ça m'a été donné par rapport à une fonction. Je ne les garderai pas après ma fonction. On nous dit qu'ils ont créé, ils ont amené un nouveau gouvernement de combat. Je crois que, en résumé, en français, j'ai dit aux Sénégalais, n'attendez Amadou Ba a été ministre de l'économie et des finances pendant sept ans. L'économie du Sénégal est par terre, rien ne marche. À part les, la, la prévarication autour des ressources foncières, des ressources financières de ce pays, les exonérations indues, énormément de choses si je devais énumérer ici. Nos députés les attendent à l'Assemblée nationale. Dans quelques temps, ce sera, dans quelques semaines en tout cas, ce sera la session budgétaire. Toutes ces questions

Euh, le chômage des jeunes euh, le, le problème des des soins médicaux l'école l'université rien ne changera parce que à la base Macky Sall a raté les choses depuis 2019 il n'a aucune vision il n'a pas su construire un pays économie il s'est trompé de priorité et ce qui fait qu'aujourd'hui dès qu'il y a un petit problème au niveau international le Sénégal est enrhumé parce qu'on n'a pas bâti d'économie on investi sur l'agriculture ni sur

la page Macky Sall soit définitivement tournée. Macky Sall, on lui donnerait 50 mandats qu'il ne fera absolument rien du pays parce qu'il n'a ni la vision, ni l'ambition, mais surtout le patriotisme qu'il faut pour poser les vrais débats par rapport à des partenaires qui essaient de nous, qui essaient de imposer chaque jour de mauvais choix. Il n'a pas ce courage, il n'a pas cette vision. Je terminerai par le cas de Barthélémy pour appeler le peuple sénégalais de savoir défendre ses mandats. Parce que lorsque le peuple choisissait de confier les rênes de la plus grande ville du Sénégal, la capitale du Sénégal, la ville de Dakar, à Barthélémy Diaz, il l'a fait en connaissance de cause. Le peuple savait que Barthélémy Diaz a été accusé de causer blessure volontaire. Le peuple savait qu'il y avait une procédure judiciaire, mais le peuple a voulu lancer un signal. C'est de dire que nous savons que c'est un complot Nous ne croyons pas et nous allons lui confier un mandat. Parce que si le peuple était convaincu de la culpabilité de, ba de Barthélemy Diaz, il n'aurait pas voté pour lui. Aucun peuple ne voterait pour des assassins. Et ce même peuple est revenu pour dire que nous voulons que Barthélemy Diaz aille à l'Assemblée nationale. Ce n'est ni à Macky Sall, ni à sa justice inféodée d'enlever ce mandat des de, de, de, mains de, de Barthélemy Diaz. Et c'est pourquoi je dis, c'est pas des questions C'est vrai, l'Assemblée nationale aurait dû empêcher cela parce que Barthélémy Diaz était en session et ensuite il exerce un mandat parlementaire. La loi est très claire, aucun député ne peut poursuivi en, pleine session et même au cours de son mandat tout court sans que l'Assemblée nationale n'ait procédé à la levée de son immunité parlementaire. Et nous sommes encore dans les, dans les poursuites. Mais moi, je que ce n'est ni une affaire d'Assemblée nationale, ni une de justice. dans ce pays-là, avec Macky Sall, il n'y a qu'une chose qui fonctionne. Parce qu'il n'en a cure de la loi. C'est des problèmes politiques, ça se règle politiquement. Et c'est au peuple de défendre les mandats qu'il a confiés à des gens. Et l'histoire nous donnera, nous permettra de voir où est-ce qu'ils veulent aller avec cette, farce Mais c'est au peuple de régler ça, particulièrement à la jeunesse. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup et à bientôt. Vous voulez des... Attendez, s'il vous plaît, restez. Je, tiens à préciser deux choses. Ah, si, si, si le président le permet. Je tiens à préciser deux choses. Certains ont dit que nous maltraitons les journalistes. Nous offrons ce que nous avons. Vous savez très bien que nous ne vous maltraitons pas. dans tous les pays du monde, même des conférences de presse des États-Unis se passent comme ça. La deuxième chose, nous n'avons aucun problème à ce que les journalistes puissent poser des, des questions. Nous voudrions que vous ayez le courage d'appliquer ce que vous voulez à tout le monde. Parce que quand Macky Sall vient faire ses déclarations de presse, ou toute autre personne du pouvoir, vous n'exigez pas de dire nous voulons poser des questions. Les patrons la personne idéale pour qu'on lui pose des questions, c'est Macky Sall, c'est ce que les Sénégalais attendent. Mais c'est la presse étrangère qui peut poser des questions à Macky Sall, mais pas à vous. Nous, on est en face de vous et on écoute. Et ça ne pose aucun problème de vous laisser poser des questions.